ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm sëñ Tuubaa rek lañu ko def mbokki jullit yi asalaamaaleykum <coughs> wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jiital ci bi kilifa yi nga xamante ni ñoo sabab jataay bii te ka ca jiitu sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Abdul Ahad waaye itam ñoo ngi nuyu soxna Maymuna di nuyu itam suñu wajur bopp di soxna Aminata Mbacke moom sëñ Abdul Ahad di nuyu sëñ Abdul Ahad Jaxate di nuyu kilifa yi toog ci jataay bi yëpp. di ndokkeel ñëpp itam ci xew-xew bi ñuy waajal di ci fàttaliku Seex Abdul Ahad radiyallahu anhu di sant itam ñi fi jël kàddu ñëpp di sant Serigne Cheikh Mbacke Niang ci waxtaan wi mu fi jiital di del nag ci tomb bi ñu jox muy al islaamu diinul uxuwati wa tasaamuxi man nag gis naa ne tomb boobu te mooy lislaam diiney mbokkoo la ak xajoo bu ko bëgga waxtaane ci tënk loo tënk-tënk da dikk ci ñaari tomb mooy li jëm ci mbokkoo mooy li jëm ci xajoo li njëkk li nag muy lislaam diiney mbokkoo la lu dëggu la ndax mbokkoo googu moo waral lislaam lim ko fonk loolaa ko jural ak mbëggante guy dox diggante jullit yi ndax loola kat li ko fa andi mooy li leen boole te mooy gëm yàlla ndax li boole jullit yi te gën a am solo ci li leen boole mooy gëm gi ñu gëm yàlla moo tax sunu borom junj ko ne innamal mu'minuna ixwa te taarix muy histoire saxal na ne pas-pas wala lii boole nit ak moroom ja la ca ëpp doole mooy pas-pas pas-pas bokk na ci li ëpp doole ci lii boole nit ak moroom ja waaye pas-pas itam bañ ko nuñutoo gis nañ ne pas-pasu lislaam bi boole diggante jullit ñi itam bokk na ci pas-pas yi gën a am doole ci diine ju fi mas a jaar bokk na ci li ak mbokkoo di jural jullit ñi nag mooy yërëmante juy dox seen diggante muhammadu rasulullah walladina maahu asiddaau ala alkuffar waaye ruhamaau baynahum <coughs> dañuy yërëmante ci seen diggante te la ko jiital nag la lay taay yërëma yërëma yërëm yërëmaane jooju mooy li leen boole te mooy gëm yàlla li leen boole te mooy mbokkoo ci wàllu diine mu mel ne loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon feeñalal xeetam bi ne leen su ma leen doon jox misaal ci jullit dëgg yi ni ñu war a mel ci mbëggeel gi dox seen diggante ak yërmaande ji dox seen diggante su ma leen doon jox misaal dafa mel ne wennaw yaram su amee benn cër bu cay jàmbat aw mettit bu ko dal mboolem yaram wa day ànd ak moom di yëg loolee mu yëg donte ne cër ba benn cër la benn paaj la ci yaram boobee bokk na ci njëriñu mbokkoo googu itam dana tax julli ñi di dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla ndax sunu boroom moo ko mas a santaane wa taawanu wax al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan diggante jullit ak mbokkam jullitam la war a dox seen diggante su fa doxee dañuy mel na leen yonent bi meloon na ne al muminu lil mumini kal bunyaani yasuddu ba'duhu ba'da mi ngi mel ni ab tabax nee na mool ya nañuy jàppante bu ci nekk di dëgëral moroom ja te loolu su amee rek mooy jur ak dimbalante guy dox diggante mbooloo mi wala diggante kiy àtte ak ñam yi àtte loolu itam buñ ko wëyalee ca dañuy dem ba nga xamante ni ku am doole mooy jàppale ku néew doole ba mu mën a jóg taxaw ku am itam mooy jàppale ku ñàkk ba mu jóge ca ñàkkam ga mu mel na loolu bokk na ci di tax sax sunu borom faataal azaka di ko jële ci ñi am di ko delloo ci ñi amut te loolu mooy li ñu tudde ak tadaamul al islaami mooy jàppalante bu jullit yi war def seen diggante ci wàllu matière ak maanaam jàppalante ba ku nekk mën a dund dund bu na tax jàppalante ci wàllu xam-xam jàppalante ci lépp lu baax mbokkoo boobu nga xam ne moo war a dox diggante jullit ñi itam bokk na ci njariñ yi muy jur mooy dana tax ñu mën a man di laayante biir di digleente lu baax ku ci nekk bañ a dund moom rekk yaakaar ne moom dong moo fi nekk bañ a faale ñi ci des waaye di laayante biir boo gisee lu baax nga koy digal sa mbokk di ko xamal lu baax di ko ko tegtal di nangu ku la digal di nangu ku la laa biire waaye di laa nit ñi itam di leen dénk muñ ak sax ci njub ndax kenn amul daraja ba tax nga yaakaar ne kenn waru la laayante biir waaye nit itam du suufe daraja ba yaakaar ne du gis lu baax ba man koo xamal nit ñi rawatina koo xam nit ni féeti na ko kaw ndax ku mel na sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ay taalibeem sax daanañ sàkku ci moom mbir mu gis ne loolee ñuy sàkku ci moom lu baax na mu defal leen ko nahju qadaa'il haaj nee na ca njëlbeen ga ay mbokki taalibe ñoo ko sàkku ci moom mu taalifal leen téere bu ñuy mën a xame ay teggin tax mu def ko te ku nekk xam na ne sëriñ bee féete woon kaw taalibe yi féete suuf waaye ñoo sàkku ci moom loolu mu defal leen saxiixul buxaari muy téereb xaddis boobu ki ko taarif di al buxaari moomu nee na ca njëlbeen ga la tax mu taalif ko dafa toogoon cib jataay dégg ku naan cey ku fogoon xadis yu wér yëpp dajale ko ci benn téere dana am solo de nee na mu bàyyi xel loola di ca dox ba taalif téere bu mag boobee nga xam ne ka waxoon loola naa am xamul ne moo tax mu taalif téere boobu de Saxiixul Buxaari ak njariñ di mu jur kon nga xam lu baax lay sa waru gar mooy nga jot li ko rek nit ña jaar nañ ca ak jaaruñ ci nag meneen mbir la kon laayante biir ak gis lu baax di ko tegtal sa mbokkam jullit <clears throat> luy firnde la ci ne mbokk nga bokkoo nga ko moom itam def na la mbokk ci kaw xajoo googu itam nga xam ne islaam daf koo xajoo ñeneen ñi nga xam ne dañoo yor leneen luñ tudde ay diine moo tax lislaam wormaal barab ya ñuy jaamoo yàlla wala boog barab ya ñuy jaamoo lañ tudde yàlla ñoom ne bu ko kenn yàq bu ko kenn mab walaw laa dafullahi nnaasa baadahum bi baad la huddimat sawaamiu wa biyaun wa salawatun wa masajid yuskaru fii hasmullahi kasira barab yoo xamante ni siif yi dañ fay jaamoo yàlla digaluñ ab jullit na ko ne na ko màbb église yi nga xam ne nasaraan dañ fay jaamoo lañ tudde yàlla lislaam digalul jullit ne nañ ko màbbu ndax buñ ko doon màbbu jullit yi réew yi nga xam ne jullit yaa fa ëpp doole ba jëmmi jamono jii dund fa ay seekal ña ngi fa fekkoon ay église ak barab yu yahood yi doon jaamoo te jëlewuñ ko fa loola kon dafay tegtal ne lislaam xajoo woon na loola xajoo woon na seen barab yooyu ñuy jaamoo lañ tudde yàlla ba warmal ko loola itam xajoo ak keneen kiñ bokkal diine moo tax mu ne woon seenaw ñam jullit yi man ngeen koo lekk man ngeen a lekk ñamu yahood yi ak nasraan yi ni nga xam ne ñoom itam am nañ sañ-sañu lekk seenu ñam yéen jullit ñi wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum ngir xajoo keneen itam moo taxoon jullit du noonoo moroomam nitam ngir ne ab yéefar la déedéet jullit amut sañ-sañu noonoo mbokkam nitam ngir ne ab yéefar la déedéet waaye da koy nangul ne ab yéefar la muy jëflante moom ci nite ci nite te di ko laabiir nag laabire ngir mu dugg ci lislaam waaye nag du ko noonoo ngir ne ab yëfër la rek loolu ah, da koy bàyyi xam ne ëllëg ka leen di atte wala seen ab atte mi ngi ci loxol borom bi tabaaraka wa taala alquran yàgg nañ cee yeewee lu bare nee na woon yahood yaa ngi nii ne nasraan yi nekkuñ ci dara nasraan yi itam ne yahood yi nekkuñ ci dara te ñoom ñëpp ñu yor ay téere yu ñuy jàng fu ñu teg loolu xanaa xamul ne loolu ñuy wax ñi leen fi jiitu loolu lañ doon wax waaye li ma leen di digal nag yéen jullit mooy ngeen xam ne bàyyi leen leen ca lañ nekk ndax ëllëg yàlla leen di atte wallahu yaxkumu baynahum yawmal qiyaama fi ma kaanu fihi yaxtalifuun kon jullit di noonoo ak nit ngir ne ab yéefar la rek ngir mu noonoo ko ngir loolu waaye yéefar ba nag bu jubadee ba def lu dul noonu da koy noonu ngir ñu jubadeem googee waaye du ko teg ci kéefër ga rek loola itam moo tax ah, ñuy gis ñu dul jullit di dëkk ci réew yi nga xam ne ay jullit ñoo fa dëkk di doxal seen diine te kenn bu ndoxataalu li ñuy tëje nag ndax wax nañu waxtu waxtu mi ngi jeex mooy kuy wax loolu itam nag ne lislaam dafa xajoo ñeneen ñi daf leen a yaatal war nga cee indi ay misaal yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundoon na ko wax nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam teertoon na benn délégation boo xam ne ay chrétiens yi lañ jóge woon Éthiopie ba bañ dikkee daf leen a teral moom ci boppam moo leen doon ganale ndax nee la tax mu leen di ganale ba fa jullit ya demee dañ leen a fonkon moo tax kon nee man ci sama bopp man yonent bi maay ganale délégation bi donte ne ay chrétien lañ loolu kon nag lu mat a bàyyi xel la yónnente bi ci boppam di ganale ay nit ñoo xam ne du ñuy ay jullit ngir wàccuwaay bu ñu am fa moom muy benn bu ñaareel ba yónnente bi itam teertu woon na benn délégation boo xam ne nii ay chrétien lañ jóge woon Najran yeggoon na ci xajoo leen ba may leen ñuy jaamu la ñuy jaamu ci biir jàkkaam bi loolu itam lu mat a bàyyi xel la ku dul jullit ñu may ko muy jaamu la muy jaamu ci biir jàkkay jullit ñi loola fa la fajoo mën a yem beneen ba ci topp itam yonente bi aleyhi nangoon naa jël hadiye ju jógee ci Muqawqis ca Égypte te nekkutoon ab jullit te mooy soxna sam ko joxoon nga xam ne moo mu muy Maariyatul Qibtiya moo juróon yonent moo juróon Ibrahim yi doon yonente bi aleyhi nga xamante ne ak goromte doxoon na diggante yonente bi ak chrétien yooyu te ay aqbaar dañ dëkkoon Égypte ba tax ñu wax ne nee na woon istawsu bil qibt xayra fa inna lii fihim nasaban wa sihra maa ngi leen di dénk chrétien yooyu nga xamante ni ñooy aqbaar yi te dëkk Égypte doonte ni duñu ay jullit ndax maa ngi leen di bàyyi loo xel na nag ne am nañ aw askan wu dox sama diggante ak ñoo ak gorolonte naka noonu itam Mut'im ibnu Adi doonutoon ab jullit waaye dafa masoon a aar yonente bi mu jógee Taayif yonente bi làqu ci moom ba dugg Màkka mu dimbale ko kooka nee nañ dafa dee ci ak kéefër waaye ba mu faatoo yonente bi delloo na ko njukkal ndax waykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ni mooy Xasan wayoon na Mut'im moomee doonte ne du ab jullit ngir delloo ko njukkal te mel na yonente bi bég na ca wayoon ko way ndax dafa wax ne falaw anna dëhran axlada majdahul yawma waaxidan la axlada dëhru majdahul yawma mutama bu fekkonte ni jamono dana fi bàyyi kenn ngir ak mbaaxam dana fi bàyyi mutam yi ngir lim defaloon yónnente bi donte ne ab yëfar la waaye wax nañu ba waxee bayit boobu moom xasaan yónnente bi sax yegg na ci ay ron di tuuru ngir xëy na bég kum bég ci li xasaan wax ci àqi kooku nga xam nenti nii jàppale woon na ko aaroon na ko te doontoon ab jullit sax daana tey céeti yéefar yi bu ab yéefar daa céetal yëgal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente daana dagg ay yitteem dem fekk ji céet ga daana seeti yéefar bu wax daana teral yéefar bu ko siyaare si naka noonu itam ay chrétien sax wàcc nañ ci këram ñëw mu teral leen lalal leen abaayaam ñu toog ca loolu nag kon fa la yëm ak xajoo mën a yem kon waxtaan wi desoon foofu la yem loolu wax ngir ne xam ne ne diiney lislaam diiney mbokkoo la diiney lislaam diiney xajoo la kam xatal nag kon mooy kan mooy koo xam dafa yëkkati ngànnaay noonoo jullit ñi kooko moom du ko may dara ndax asidda wa alal kufaari la wax Sëriñ Tuubaa nee na woon ba muy tagg saxaaba yi ne na usulun alal aada masaabiixu fi duja wa kullun sujaawun rësa dil kufri yejzau ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ ñoom saxaaba ya buñ masaa jàpp ab yéefar bu dëng bu jubut bu leen noonoo buy xeex ak ñoom dañuy dagg te boobu dafa andi fële xam nga kon buñ dee wax xajoo nag ci mooy diggante jullit ñoo xam ne xeexuñoo ay yéefar yéefar ya may leen jàmm nañ leen may jàmm waaye bu fekkente ne xeex a jot nag boo waaye jullit ñoom asidda wa alal kufaari la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa xam ne sëñ Tuubaa rek lañu moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek ko def